baa ko jóge ci làmb bay baa ko gën ñii bu ñu demee élection ñu dubaleen ba jéggi leen duñu ñu seen morom. ban élection kan mooy doon seen candidat bu mun a doon. kii doon seen candidat lépp lu ñu def ci yoon lay lalu. ay légaliste xam nga ñun ay légaliste lañ ay républicain lañ. waaw ah ñun ay légal ñun duñ yéen de yéen guleet ci àddina partie boo xam ne c'est-à-dire que honnêtement saaga manipule sos. CD bi xoosu na waxal leneen. non non CD bu xoosu du yow yaa koy wax. yaa day wax ji seede bu xoosu mooy bàyyi ñëpp te di nga yoot fekki benn xaalis siif ko mu tuumal la nga ne dañ la pol dañ ko politiser loolooy seede bu yàqu ah kon yow donc seede bu yàqu mooy merci léegi nag tu affirmes que Sonko dafa siif xale moo may ma ma ñëw may tu affirmes que Sonko dafa siif xale ma temps de parole la non non tu affirmes moom est-ce que li ngay def yoon la waaw wax bu ma dagg sama temps de yaa ne xale bi ci laa di may ma ma ñëw Sonko li ñu doon xaar ci moom mu ne xamul salon ba xamul xale ba lu tax ba du ko xam ne ba yow booy booy sangu ci piscine sax sol blouson ak t-shirt Sonko xam na boîte lu ci suñu yoon waaye may nga xamul salon bi c'est dañ soxla ku am moral ku am éthique ku am ah. intégrité ku am probité nañ wax ci loolu da nga wax nañ ci wax nañ wax non non nañ ci wax xale boobu xanaa du sénégalaise xam nga yéen da ngeen bañ ba ne xale bi tuumaal. xale bi tuumaal tuumaal tuumaal foo ko dégg rek mooy lu am amuloo parole bàyyi ma wax c'est-à-dire que xam nga man j'ai été bismillah dama ne Sonko c'est-à-dire yéen wuñ kenn kaso yéen wuñ kenn lu bon. jusqu'à la preuve du contraire il présumé innocent. da wax ji mais encore une fois sëñ bi. yow mi ne daa siif kay présumé wu ko innocent il est coupable yow yóbbu woo ko fa tàgguwoo yëgoo ko. lu tax mu may tàggu. Eh, waaw mais non tamit dem ci soxlaam. waaw xale boobu amul doomu Sénégal du doomu réew na kon na yoon def liggéeyam mais mais Birame mais Birame ba euh, section recherche kay def na liggéeyam na yoon def liggéeyam. section recherche def na liggéeyam mais arrangé wu leen. non non dégg ñu arrangé yàlla la ak sénégalais yi. arrangé wu leen. li ñu arrangé. sénégalais yi la ak yàlla seen pataas bu tàng bii de ngeen ko passé. aji nekk. xam bu génnee. est ah, que dafa am ñu bokk ci yéen ñu ne xam nañ déggante nañ ak aji. déggante nañ ak nijaayam. ah yéen yéen xam lépp yàlla ci télé bi la toog wax ko ci télé alors ñu bàyyi leen ngeen tàggoo ndax waxtu bi jot na ñu bàyyi la nga tàggoo ah bon maa ngi gërëm El Malick vraiment à part wérante yu ndaw yi wax ji dal na yaakaar naa ne sénégalais yi aussi jànge nañ ci noonu la politique aussi ku nekk day défendre say position ñu ngi koy gërëm ku dal la ku tay la di leen ñaanal jàmm aussi li ñu nekk aussi yàlla jàppale leen suturaal leen ba peut-être yéene woo leen ko quand même bu yàlla xam na ne yéene wuñ leen ko wallaahi yéenewuñ kenn lu bon yéenewuñ kenn lu ñaaw encore une fois di la gërëm ci opportunité bi ñu may mhm. di gërëm sénégalais yi encore une fois lu rafet ci kàddu gi yàlla la suñu borom lu ci sooxe aussi ay jaamu yàlla lañ rek des fois ñu juum aussi encore une fois merci merci beaucoup mu nekkoon Birame Faye nekk coordonnateur bu task force républicaine en même temps nekk directeur général bu ASP El Malick Ndiaye ñu bàyyi la nga tàggoo waaw damay commencer rek di di di remercier encore di ko feddaliwaat sénégalais yëpp rawatina ndaw ñi parce que euh, remarque bi dafa leer mooy sénégalais yi yeewu nañu te xam nañ li ñu bëgg te jaral na leen ko tamit di leen wax ne rek nañu gën a takku gën a mobiliser wu ngir mën a sàmm dëgg ci mim réew ngir mën a pousser ñi ñu yor ba ñu taxaw ci soxlaay askan wi waaye tamit doxal dëgg ci miim réew loolu euh, ñu ngi ci ñaax sénégale yépp même ñi bokk ci ñoom parce que nag ci affaire bi am na ñoo xam ne biir APR lañ bokk wax dëgg yàlla dañoo wax seen naqar bu ñu am ci affaire bi te am na ñu ci xam tey rek am na ci benn député boo xamante ne ni génne na version donc te bëri na ñu nekk ci ñoom parce que nag bëri nañ fee ay xarit trop nag ñoo xam ne wallaahi d'accord ñu ci yëf neexu leen gënalu leen te xam na ne luy yàqal président Macky Sall la man yéenewu ma ko ko très sérieusement donc encore une fois encore une fois dañuy ñaan rek dañuy ñaan rek tëjee man maa waroon tëj loolu yëpp muñ naa ko kon kay na tëj dañuy ñaan rek dañuy ñaan rek yàlla delloo si seen xel eh, ba ñu xam ni Sénégal day des ñu ñëpp dañuy dem donc nañ ko rafetal encore une fois doxal yoon ku man sa morom duma fi may daanee nee rek encore une fois ngeen di tere Macky de ay ku mën sa morom duma ci làmb ji lañ nekk mooy élection leer ñu dem projet mooy xeex. projet de société mooy xeex moo ma relancé moo ma relancé kon boog di gërëmaat kilifa diine yi nga xamante ne ni malgré tànkam lu gi leen di tànkam lu wéy nañu ñoom di ci wax ngir sàmm waaye di gërëmaat encore une aussi jolof gi nga xam ne fa laa bokk waaw gërëm bi moom euh, yaakaar naa ne jërëjëf jërëjëf euh, El Malick mu nekkoon euh, secrétaire national bu à la communication bu parti